C'est une boisson punch. Ak. Tonal bégaiement fraîche. Cabinet Serine Touré. Bon produit ak garab mucho aibi di lis bu mag bu côté brioche dorée bi. House meilleur partenaire pour votre body care vente de produits cosmétiques situé aux HLM Grand Médine près de l'école Dior. une Café Touba Koki le café préféré des Sénégalais. Nous c'est une série boutique lay ak koor gi. Zik tonton laay sam papa ne nga lebal ko ñaari kilo suukar eh xam nga lan bor bi dafa doy nekk mu bës jeez lagal ni sa baay jote nañ fi daaw naxub mayonnaise carnet bon bi fees na depuis le 15 ñuul weexatul ni neige bor ci boppam moo ma tënk ci koñ bi nekkatuma fi à l'aise ak enseignant ci boppam mooy free coonoy boutique boo ne muse barikaay bi fees na day xuloo boutique lagal ni ko weer wi dee na kon bon bi nee na baay baay damay saf tay si nga ëmma seen kokko laay laay Coco, coco, lie, like, coco, coco, lie, like, coco, coco, lie, like. salaire u enseignant moo cëkk ne mois de février da ngay yabante këram naaj bu tàng bi ba sa février fukki junni lañ lay bàyyi la cinq roñ ko balaa la dix tuuf la salaire bu oyof nga jënd ko bagage ñu yab la bon bu diis. salaamaaleykum Baye Dame jaay ma boobon bëggee ko ko kon yow laay fayaloo sa doom ji cours particulier monsieur Bari daa xam. ah monsieur Bari ma lay defal teel dafay gat sa gat sa wuro wa dem na këng dinañ xam ku ñuy massa massa. li mooy réew mi dañ lay soxore mere la ci sa alal dañ lay leb nga nangu suba nga bañ ñu teggi romb tàllal mais laay nagamu yónni naa boo bi sànq nga ne ko baare nga kaye bi te heure bu ñu fayee koo jox la xaas nga jënd marchandise yow lan la monsieur Barry may ma jàmm dama woor te bor bi daa doy su ma toppee sa njëlu kër gi ba ne këpp fi lay sa gëdi jooy sonn naa ci yéen lebal ma suba ngoon carnet bon maa ko def man mi tijji sama boutique cité enseignant yéen seen salaire fu muy jaar weeru lëmb la munul xaar tuuti na te doy na waar carnet bon yi dama ci maar lii comme caaye naar doon maître du feeku yaar da ngeen di gën di sama waa yow nekkal nit fii ku nekkay soxla moromam soo ñu keppee fii léegi ñu kepp la fa ca des yow looloo tax nga fipp mer ngemb dàq sama doom seen leb gi dama ko attanul te boutique amul koom la yow mi ci bopam ya sof li ngay wax demé noonu nonu yee beuri suñu côté rek mais xamna heure buñ la lébé dañ lay fay nana waxante deug sa salaire bi téwul ñaari jabar bari gëna ci li nga né ya gëna xamné xam ne semiñ tëgul sabar li nga yenu nga atanul do sa défense cœur bari do ko njabar té it sama boutique bi kenn du ko ma lu may safar yeen yalla mo nu bolé ta lolu yàgg la way tam da ngeen mëna mën lolu deug la dëgg la. da nga bëri wax salaire yorul jabar la ko yor ak fit yow mo man da nga ragal tapen bari nanu waxante deug enseignant yi da nonay deug na la ngeen di konté be ko suko ngeen ma rey non la yow la yi da nga neex de yow rew mi gis nga ko dul lepp ak fu jamono tol ni yow koor ge la jappale moo ngay wax ni deug na sax courant way fal da ngeen di def ay 600 da ngeen di jouer nar bi hey enseignant bari sama way ngeen lol waye min ngeen jaga njaay wàcc kolobaan laaj super sans chemise fëgg jaay e bari nag foog ngeen génn ci loolu seen nay gi bari na foog ngeen génn ci loolu. non la yow yaay defe yaa yow xam naa ne réunion parents d'élèves su ñëwee te sañatoo ñëw école de non. ma ñëw ba mu neex sañ sa lu weex wax lu ma neex seen nay gee war a jeex. bokkul leen ni syndicat mais enseignant yëpp a nduroo tontu ko ci ne danga nay mu la nay dañoo yorul dañoo yorul yoruñu. waa nijaay. waa lebal leen rek xorom sax ak naanaa dañ koy leb te saa ñu kaasee ñu yokkal seeni salaire ñoom xanaa dañuy doxaan seen boisson punch ak Monde fraîche cabinet serin Touré bon produit ak garab yu mucc ay bi di lis xaarkat bu mag bu Massar côté brioche dorée bi House meilleur partenaire pour votre body care vente de produits cosmétiques situé aux HLM Grand Médine près de l'école C'est une café Touba Koki le café préféré des Sénégalais Nous l'en doon c'est une série boutique au ak à É Seu Didier é?